mu delloo buum ca boy boy ba moom sëriñ mbuup jël ay lim yu takku ci ay tonu ceeb jébbal ko daare alxuraan yu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba sëriñ Alaaji Njaay Cheikh nit di wax ne jëf ji du gulet. muy jël tonnage bu bari ci ab ceeb euh, dundu senegal njàmbatum dund buy am rek ci ceeb bi la jëm daara yittewoo ko jamono gi nekk mu jël tonnage bu bëree bari jëmale ko ci daara yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi nga xam ne moo nekk di Touba Euh, loolu nag du gulet du lit loo xam ne euh, nekk dara ci moom wane gi walla wax gi it du len lu may seede li gis seede lu rafet li nga xam ne nit ki dund jëfam ju baax dañ ko war a seedeel euh, bu génnee àdduna it jëfam ju baax dañ ko war a seedeel jëf ju baax ju rafet nag bu ko nit defee wane gi ñu koy wane walla wax gi ñu koy wax walla fësal gi ñu koy fësal li ci am solo rek moom mooy ñi nga xam ne xamuñ woon ne bunt yiw a ngi nii yu mat a jaarale seen jëfi yiw ñu daal di koy xam daal di cee jaarale seen jëfi yiw ña nga xam ne ña nga ca woon it nekkoon ci jamono ji rek ñu daal di gën a soññ ko gën a laxasaayu xam ne yoon waa ngi noonu ñu tege ca euh, xam ne fa ñuy def fu defu la daa damay di wax ne le Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waxoon ne dugal euh, benn type ci gémmiñu ku ci biiru këxiif moo gën tabax junniy jàkka. boo jëlee ab lim euh, def ko ci foo xam ne foo gën a mat a def mooy jox ko dong yu jàng alxuraanul karim bu ñuy jàng alxuraan diirum ñi ngi jàng. xaraf bu ñu jàng nga am sa fukki yool ba ba muy jeex loolu amut yu wunu toll foo ñaanal euh, sëriñ suñu borom subhaanahu wa taala nangul ko ndax jëf yu mel nii loolu rek moo ci am solo. cant yi jurt jotal ndax defalul kenn dara deful benn daara dara deful benn dong daara dara deful benn siñ daara dara boppam lay defal bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo seede woon jotaay ba sëriñ xaadi jaxate bu rabital quran fii ci Touba sëriñ xaadi jaxate di wax ne ndimbal li dafa ñëw ci jamono ju nga xam ne dañu ko soxla ku ne xam na ne fi jamono toll daanaka boo boo dikkee ci période bi mooy ñi ngi jub ci weeru koor euh, weeru koor euh, daara yu bari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 di ñaanal mu am fan wu gudd ak wér yaram eh, ak njaboot gu barkeel ak lépp loo xam ne woon na ko ci xolam bi ak yéeneem rek mën ko àggale ñëpp ko yéene mos na may waxtaan ak benn kilifa gu baax dane ko sëñ bi de man dama bëgg nga ñaanal sëriñ mu yàgg fi lool te léppam yokku mu ne ma ah, Modou ma ne ko Mbàkke mu ne ma sëriñ daal eh, mooy ñaanal boppam ndax li def ku koy def ñaanal sa bopp mm-hmm. loolu nag lii doon dëkk bu sell bi di Touba di dëkkub daara gën ngaa néew junni ci ay bërëb nu def koy daara waaye ay daara yu nga xam ne yéen saay dañuy dund ay jafe-jafe yu doy waar